asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, Lamine Sow taalibe sëñ Ousmane moom sax moom Basiir tegal Mali maa ngi lay nuyu waaw dégg na Kamal yaa fa xam-xam ma bëggoon a laajte comme taarixu Kër Mali kan moo ko sànci dat ba ak maanaam kan moo ko yeesalaat gannaaw ko. at jëbu moo ko sànci ñu ngeen ko xamee yéen ñëpp bañ demee ba jamono mu tas tasaat ca maam yi si naali sekk mu baax mii moo ko fi beesalaat biñ ko fi beesalaat mu tas. ñu dem ba 1964 muy 1964 ci la ko sëñ Bisi Seck beesal mm, bi ñu demee ba 65 1965 muy 1965 ci la fi def jumaa ji. maa ngi jumaa ji daal jumaa ji defe naa ñu ko tabaxal. 19 1955 ah, wala 52. waaw sëñ Lamine dëgg dëgg na gëstuwaatoon. Serigne Bass Seck mooy tànn Kamali ci yeesal bi ci atum 1966 1966 bañ demee 1967 la amal jumaa ji sañ mamune. moom mu ne. loolu ba léegi ma wéyal laaj la man li ma bëgg a xam mooy yow fan nga jaay alxuraan ak ban tiir nga jàng ak kan ngay waar mu lay déglu déglu ni nga fii nii. fatara sara suma mu di wax di alamin astaghfirullah isama um fatrat isal kawaakibu untasarat wa isal bihaaru fujjirat maj topp isal xubóor bonsarat tax ñëw xalima nafsun maa qaddamat maj topp yow nga ne xalima nafsun dégg war bu baax a baax isama um fatrat wa isal kawaakibu untasarat wa isal xubóor bonsarat xalima nafsun maa hadarat sa ñaaru aaya bi mooy wa man yabtaqi xayra islaami diinan falan yuqbala nga ne wa huwa falan yuqbala minhu maj topp demal nga jàngiwaat ta nga nappi